man plan le plan de relance économique bi daaw de ni ma ko gisee mooy lu bax la parce que dañu dugon ci dañu nekkoon ci phase de phase de croissance manam phase de croissance 2014 ba 2019 mu nek phase de croissance bo xamné la croissance moyenne au Sénégal était autour de 6 pour cent croissance nak bu ñu koy wax di gaay dañ naan kenn du ko lekk mais croissance boo ko euh, bu da fay da fay yéeg di wàcc baaxul mais croissance bi bax moy croissance boo xam ne dafa dafa gudd ba euh, ci ay nek ci ay at yu bari ci bobu la koy askan bi di mën a mhm. donc euh, ñu dugg am dem deux mille vingt ñu président de la République né nañu atteindre nañu cher recherche objectif croissance de six pour six virgule neuf pour cent. Mhm. six virgule neuf pour cent euh, à partir de décembre jëm janvier. coronavirus bi dugg. Euh, mu perturber l'économie mondiale bi parce que pandémie la pandémie a perturbé l'économie perturber mondiale bi a mën nañ ci soit bu perturber économie mondiale bi mënul mënul Sénégal dëkk yi nek dëkk yi nek ci euh, ci bi mu les pays européens les pays industrialisés les pays les plus riches sont entrés dans ce qu'on appelle la en récession Madame, seen taux de croissance c'est devenu euh, négatif manam dañu dañu wàcc en dessous de zéro à partir de 0,1 jëm ci à ngay créer emploi à créer richesse. richesse tu souffres, tu doo créer emploi doo créer richesse donc monde bi yëpp nekk Nous ñun ñu sant le président de la République mettre en place un euh, programme bo xam ne ko tuddee mu ko le programme de résilience économique et et sociale. Mm-hmm. Euh, pour lutter contre le le Covid 19. mu nek programme bo xam bi euh taxawayam jeexital bi gis nañ ko parce que fi ñu gisee jeexital bi taxaway bi moy gis nañ ni que économie du Sénégal euh, Manam perte na point sax mais pertul point comme nous mu waroon perte point tey ñu ngi naan entre 0,1% la ak mm-hmm. du dëgg mu nek lo xam dañ koy rafetlu légui nak buñu démé ba nga xam toll nañu.

donc ci qui est li ci war il faut lancer euh, plan de relance plan de relance bi plan de relance. plan de relance est xam parce que plan de relance bi euh, le PAP 1 le plan d'action prioritaire numéro 1 dans le cadre du PSE toujours plan Sénégal émergent mais en PAP 1 2014 2018 2019 2023 ñu le PAP 2 bi mm-hmm. PAP 2 bi moom que ñu waroon programme mais bi 2000 euh, bi pas de ñu dugal ci le terme accéléré ajusté accéléré maanaam ñu xoolaat ko dugalaat ko saytuwaat ko xoolaat ko pour liggéey toggaat ko liggéeyaat ko toggaat ko liggéeyaat bi mooy euh, jàppoon nañu tey dañ jàpp juróomi axe juróomi axe yoo xam ne jàpp nañu bu ñu am croissance bi président di wax nañ ko wëri mooy fi mu ne départ à zéro et c'est pas impossible départ à zéro dugaat ba 5,2 euh, en 2020 dem 7 en 2021 22 pardon pour 2023 jotee ñu dugg 13 ak li li nga xam ma xam ko ñep xam ko moy Sénégal dafa nekk dëkk bo xam da fay produire pétrole fay produire gaz. Mm-hmm. donc le relance bobu limu mu wund ci 5 ci 5 thèmes yooyu moy moy agriculture élevage euh, du dëgg ak euh, pêche moy nekk ben ben tank, du dëgg nga jël la construction nga jël l'industrie nga jël le tourisme nga jël les services euh, financiers ak d'assurance. Mm-hmm. juroom yooyu lañu décider ni ci lañuy concentrer pour mon outil croissance bi nga xam bi nous Sénégal am mu continuer ci lu mu plan plan de relance pour retrouver les fonds dina dina dina dina parce que euh, dañu am chance. 14 milliards nous avons 14 milliards 700 millions précisément dañu am chance euh, un chef d'état boo euh, c'est un cadre c'est un ingénieur de formation dans la géologie a un diplôme de Tech, ci ingénieur de formation que quelqu'un qui il a rampé dans l'administration euh, publique euh, directeur général euh, ministre président de l'Assemblée nationale premier ministre n'est que président donc euh, Bo amee parcours yu mel non dans le monde amul ñu bari ñu ko am boo amee parcours mel dans le monde da ngay am da ngay bénéficier d'un capital de sympathie et d'une confiance président de la capital de sympathie bu confiance boobu le, la ci la taxaw ba jël le pouvoir bu mu le pouvoir bi ñu teg ci euh, disons boobu ba presque euh, sept ans du dëgg dolli ci ans bu ñu dugg ci période boobu mu def fi Sénégal dans ce qu'il a appelé le PSE qui est un programme de rattrapage et d'urgence maanaam li ñu deful woon depuis 1960 ba léegi léegi lañ koy def urgence ak euh, ak rattrapage urgence ak rattrapage bi PUDC bi ci le bëgg Promoville bi ci le ci Puma bi ci pour les frontières euh, l'accélération de l'agriculture PRACAS bi ci la dugg et cetera donc programme de relance bu bu programme de relance bu rëy bobu nak joxe na résultat yoo le monde entier a confiance au président de la République et ça c'est une garantie suffisante et nécessaire pour que ëllëg booy ut dara nga mën ka am firnde bi mooy le président américain qui vient ici Angela Merkel musul ñëw ah, musul ñëw Sénégal musu fi am ku jëm ku mel noonu ñëw fii ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak raay yi ñu am si àdduna beeg yooyu loolu benn fànn la mooy le leadership du président de la République beneen fànn bi mooy la garantie de la signature bancaire du du Sénégal Sénégal dafa nekk boo xam dafa on a un ministère des finances un ministère de l'économie ñooñu am na ak ministère des affaires étrangères ah, Sénégal am na crédibilité boo xam ne musul am problème mu euh, endettement Maintenant, si vous avez dëkk yu Brésil ou Argentine vous nañ dans ce qu'on appelle le, non paiement de la de la dette dañu dem ba di fay bor di déficit mais Sénégal ñun dañuy àbb de di liggéey di rembourser comme ma kër dem banque di liggéey Sénégal tam non lay liggéeyee te si bi Sénégal le Sénégal en défaut de paiement et donc bu loolu amee mën nañ ni que effectivement on a on a une bonne signature cette bonne signature a fait qu'on gagne des points de plus en plus dans le doing business notre pays est attractif su que da nga am dëkk boo xam c'est attractif il y a aucune raison Sénégal attractif on a avant le laak tey tey bi nga xam ne bi nee euh, gaz 2023 pétrole 2023 donc lii nit ñu doon wër yëpp li ñu manqué woon yëpp na donc tey lu ñu bëgg am ko nga daaw risque de surendettement dafa am ñukoy c'est le ministère de de l'économie et du ministère de l'économie et du développement euh, en en rapport en collaboration avec le ministre de la le ministre des finances nous ñoy xol bien sûr sous la direction du président de la République euh, risque de surendettement mënul am parce que Sénégal ben dafa bok ci kuréel bo xamné union monétaire ouest africaine le tudde mm-hmm. té union monétaire ouest africaine dañ taxawal lo xamné li ay ay ay ay charte la ay règle la. manam mm-hmm. yooyu ku bok ku képp ku bok ci union bi da nga wara a ci lolu mm-hmm. élément bi ngay cité charte yi bari na même bi jëlee la ci ben rek moy bi ngay cité moy risque de surendettement bi iuma dafa né euh, su fekkee dëkk bu nekk mën nga gérer sa endettement ou dëkk mais waroo dépasser 3 de ton PIB de ton produit intérieur brut maanaam par année su ñu jëlee li ngay li ngay liggéey ci richesse yëpp dans le domaine des services euh, et des et des et des biens d'équipement li ngay liggéey yëpp boo ko 3 pour cent bi rek boo ko amee 3 pour cent bi rek waroo ko dépasser boy leb te Sénégal euh ñu ngi ci ñu ngi ci fofu ça c'est ça c'est un élément deuxième élément bi moy dañu né euh taux d'endettement endettement bi warul dépasser 70 té fimné ni ak mbass bi ni Sénégal mu ngi autour de 53 et 50 et quelques pourcents mhm. té ñu ngi ci autour de 60 60 euh, euh, et quelques pourcents. donc on est toujours en ci ci ci biiru euh, ci directive yi UEMOA donc risque de surendettement c'est c'est pas seulement supervisé surveillé par le ministère de l'économie et des finances et tout ça mais c'est c'est surveillé par les par les la la comment par l'organisation euh, panafricaine là bi bi taxaw mooy UEMOA ñu surveiller à travers les banques centrales donc risque de surendettement boobu euh, on peut ne pas le dire loolu benn la ñaareel bi ma fàttali na euh, Daouda dañ koy wax il faut être décomplexé Macky Sall benn am na benn bés mu ñu dem def conférence ci loolu pourquoi est-ce que les banques les banques centrales les bailleurs et cetera nous imposent toujours boo leen di leb na ngeen leb ci li ngeen di produire ngeen lep ci temps mm-hmm. alors que on sait que il euh, y a des pays développés comme la, les États-Unis dépassent nañu waxu autour de 3 de leur PIB ou les 0 pour cent dañuy ce ba lu ëpp produire. négatif mais taxul comme la confiance céda donc l'économie tourne. loolu mooy ñaareelu réponse ñetteelu réponse enfin mooy ce qui est important C'est booy leb daaw da ko dougal fo xamné ne da fay jur dara manam buñ la buñ la bo amé bo amé bo amé 100 francs buul jël 100 francs dem jënd ko ceeb ak diwlin lekk ko mu jeex mais 50 francs 50 francs donc tant que c'est un endettement sain mhm. d'accord il ah, n'y a pas de problème ce qui est dangereux c'est jël endettement dans la consommation et ce n'est pas dans le secteur euh, de l'investissement dans le secteur productif es président endettement c'est dans le secteur productif centre bi li muy li muy plan de relance bi euh, dam koy dam koy tënk ci ñaari fan benn bi moy ce que je dirais dans le passé et présent présent proche et beneen bi moy dans le futur. Mm-hmm. dans le passé présent proche le centre d'études et de recherche pour l'équipement dafa nek centre bo xamné bi ce sont les ce sont les les colons qui l'avaient installé au au Sénégal sous la colonisation. Mm-hmm. du sous la colonisation.

garantir les investissements de l'État du Sénégal en termes de routes, en termes de construction d'édifices de, de, publics de dëgg boo xoolee grand théâtre bi wala nga xool building bi wala nga xool TR bi ñuy def wala nga il faut mu am une étude géologique pour garantir euh, tali yi Si on tali mën na def mën na deux ans comme mën na dix ans ça dépend de de de de l'étude de sol formulation du béton yi ni ñu koy def et cetera ba nga xam ne tali bu rek bu donc euh, foofu mooy euh, passé bi ak présent ak présent président naka lañ ko ak bi mais mais futur bi moy euh, président de la République dafa setlu que dans le domaine des télécommunications tay am nañu ce qu'on appelle un régulateur euh, régulateur bi ku bëgg a ñëw Sénégal euh, pour créer société télécom fa ngay jaar ñom ñoy xol sa qualité équipement ñom ñoy xol prix ngay jaay ndax depona na ak prix consommateur yi wara am mm-hmm. du deug ñuy surveiller lolu donc ñooñu ñooy autorité bi nga xam ne ñoom ñooy surveiller loolu ñun nag dañu nekk dans un pays boo xam ne daaw su ma ko waxee ñu bari daf leen di xaw a dañu nekk dëkk boo xam bi dans le secteur des BTP amul régulation amul régulation mooy maanaam dañu bëgg ce président daf ñu yebal ñu réfléchir taxawal benn structure bu bees boo xam ne bi CEREC rôle boobu lay joué mooy rôle de de de régulateur dans le secteur des BTP rôle régulateur dans le secteur des BTP lu muy wundu moy bâtiment yi ñuy tabax deux ans mu mab wala électricité bi euh, tak fa parce que ni nga defee baxul wala ndox mi beut beut beut xéré yoy yooyu miir yeeg yoy yak bâtiment bi manam lepp luy mëna garantir les investissements té yalla xamné ni état lu mu fu gëna sonné dans ces investissements publics moy moy sur les sur les sur les routes du dëgg sur la construction des trains par exemple sur les édifices publics xaalis bu dul jeex lañ far dugal comme xaalis bu dul jeex lañ far dugal il faut quand même ñu am une structure de régulation boo xam ne ñi fay liggéey yëpp ñu gagné marché yi fay liggéey on garantit que ñooñu ils am nañu compétences, bi am nañu équipement bi te matériaux yi ñuy utiliser war na mën baax foofu ci orientation bi le centre d'étude di nekk di liggéey en ce moment d'accord dundu doomu aadama maanaam euh, économie ki ko yore moy doomu adam nit moy doxal économie économie du doxal nit su fekkoon nit amul économie du am échange ci ñaari nit la donc économie buy dox ci lolay doxé té nit ci limuy ñëk dox moy la satisfaction des besoins primaires fa satisfaction besoins primaires yi mën nañ ci tuddee moy euh, c'est c'est c'est manger c'est boire et c'est vêtir amna yenen yeneen yu ci toll am na yenen yu ci top mën na la ko épargner pour le moment mais manger boire et se vêtir bobu manger bi mooy jiitu comme l'équipe bi mooy da ngay nit bala muy taxaw bala muy tal lu nek day biram day fess d'abord mhm. bir bu bir bu bir bu yolam dafa mel ni saako bu saako bu amul dara du taxaw mhm. donc lolu motax tay tey ñu ne de l'agriculture c'est c'est un pilier mais rax ci doli agriculture bu ñu ma nekkee pilier dafa nek ci ben secteur bo xamni ñu ko tuddee secteur primaire économie dañ ko diviser en dañ ko diviser ci ñetti secteur mhm. secteur primaire secteur secondaire ak secteur tertiaire secteur primaire bi moom dafa soxla euh, lépp lu jëm ci mbay napp ak euh, ak ak sàmm mooy secteur primaire boobu ci loolu su fekkee secteur primaire bi marché na du dëgg nit ñi dinañu am lu ñu lekk mu nekk benn su fekkee loolu marché na nit ñi dinañu bàyyi di jënd bitim réew mu nekk ñaar su fekkee loolu marché na nit ñi bu ñu lekkee li ñu war a lekk ba pare li des mën nañ ko dugal ci secteur secondaire muy secteur de transformation mm-hmm. li ñu tuddee l'industrie de transformation ñu transformer ko je veux dire Bouy baa ngi fi bisaab baa ngi fi euh, ceeb baa ngi fi ni ñu koy reconditionné euh, mboq baa ngi fi et cetera et cetera ñu koy reconditionné loolu mooy secteur secondaire bi mm-hmm. et secteur primaire bi dafa soxla euh, main d'œuvre trop ba tax na secteur primaire boobu mm-hmm. il faut que ma daaw dama wax la leen rek benn information bu am importance mooy état buy xool euh, buy buy mesurer buy def euh, buy def buy buy xool économie am koy fondé ci euh, ci balance des paiements mm-hmm. te balance des paiements bi dafa am ñetti rubrique yo xam ne yu am importance lañ ñett benn bi moy euh, le compte courant ñaarer bi moy euh, la la la la la balance commerciale du dëgg euh, ñett bi mun na nekk mun nañ ko tuddee balance des des des de des services mais bo jëlé ñaar yo rek mala wax balance balance ci balance des paiements nga jël nga jël le compte courant nga jël balance économique li ngay jënd bitim ak li dugg sa réew ci lay xamni yow nga c'est économie nga économie bu taxaw la mais économie bu taxaw bo daaw Sénégal ñett nous yi lay ñëk lay gëna jëndé bitim réew eh, dañuy importer tout ce qui est pétrole 16 de de de de de notre PIB. dañuy importer tout ce qui est bien d'équipement. mu 4 Nous avons dañuy importer tout ce qui est bien alimentaire mu 3,8 Nous avons xam nga 3,8 ci ñaata la toll mu ngi ci 138 milliards. d'accord alors li ngay wax est-ce que béy bi amal nañu moy euh li président di wundu moy nañu fexé ba agriculture bi ñew mëna a suqaliku ak équipement yiñ ci def ak euh, réforme yiñ ci duggal du deug ak euh, exonération TVA yiñ ci duggal mu mëna produire à organisation béykat yi yoyu ak euh, la machinisation la mécanisation de l'agriculture. agriculture yooyu yëpp bu duggee mm-hmm. agriculture bi day jóg élevage bi jóg euh, pêche bi bu troisième euh, pilier boobu nga troisième euh, source de d' ça représente 3,8 mu 138 milliards 138 milliards yooyu su le Sénégal économiser mais daaw de imaginer nga jël 138 milliards diviser ko nga jox ko 100 agriculteurs, agriculteurs agriculteur avez ne dina am 1 milliard donc aujourd'hui le combat c'est de dire nañu fexe ba Sénégal mooy balance des paiements boobu mal la doon wax noonu nañu ba Sénégal di importe di exporter lu ëpp lu muy importer. Mm-hmm. exporter importer lu exporter lu ëpp lu muy importer. mooy ci ñette pétrole bi 2013 incha allah dinañu dinañu dinañu dinañu produire ba dootuñu soxlati importer. Mm-hmm. du dëgg bien d'équipement yi mooy oto yeeg euh, pièces yeeg cathédrata informatique yooyu tolluguñ ci. Mm-hmm du mais euh, troisième bi produit alimentaire yoy ñaar yoy mëna dañ moy première source bi d'importation bi ak troisième source bi mën ko dindi te yooyu su dindé ko richesse lay doon ci bir Sénégal su donné richesse biir Sénégal mais liñ ñu doon jëli xaalis bi di ko yóbbu bitim réew di dañ koy produire fi suñ ko produire fi yow ya koy produire man maa koy produire keneen ak keneen donc njëriñu réew mi lay doon exportation yi gëna bari importation yi manam dama né ñett la importer si si li ñuy importe lu gëna bari ñett yi ñoo jiitu moy mooy pétrole bi moy bien d'équipement moy euh, dundu bi aliment produit alimentaire produit alimentaire 138 milliards lolu loolu agriculture bi ñëwé bañu booster ko ak li fi wax yépp su remplacer du dëgg loolu xam nga xaalis bu ñu économiser la donc lolu nek na lo xam lu am solo la rax ci dolé tay dans le cadre de mes recherches dama tombé ci ben publication bu banque centrale def union monétaire ouest africaine reprendre ko ñu ne bu fekkul woon ni du mbéy euh, récession dina am dans les pays de l'UEMOA Manam mbay mi bi wax agriculture 91 milliards yooyu loolu euh, sauvé euh, les pays de l'UEMOA ci ci ci mbas mi bu du woon loolu mbas mi dafay gën a grave maanaam dañuy dugg en récession totale